Boubacar Cham Boubacar Cham xam nga si jamono wéré koor lañ nekk ah, breakfast so team bi dañ gëna doxantu set nit ñi naka lañ halaté wéré koor suñ solun suñ defin suñ jëfin suñ lekin ak yow lan moy sa xalaat. Ah, si suñ jëfin moy man lim suma halaat si lolu dal moy né nit ñi ku ci nekk dal sa éene bi mo gar mo wara ngi ka gëna sa jëfin sa éene bi dafa wara mat nga xamne yow julit nga ene nga bu nga ene ne nek nga julit be pare sa jeff dafa wara mengok lingga li nga bugg a so soo nekkee julid be pare sa ene bi mat sa solin dafa wara andak solini l'islam war rus rus rusé li nga nek comme bu julit nga da nga wara mengo yefi julit comme sa solin li islam santane lolou nga wara def lum la wul nak nga fexé sori ko yaakar na né loolu moy ya, soli muslim ak jëfo muslim non nga wara né eh, mel am dafa am ño xamné tammi taami ko rek lañ dé sol sol bu yiw yow lo am pour loolu. ah tammi weeri ko rek xam nga do julit nekut nekkuloo julit only weeri ko da nga nekk julit for for your life comme in li sa dundit yépp na nga eene pour nekk muslim kon nag soo nekkee muslim si kaw waruloo seet yan bés nga war a nekk comme muslim da nga war a nekk muslim all time waxtu bu ne da nga war a jëfoo comme muslim waxtu bu ne amuloo bi weer bi weeri koor la amul weer bi nii weeri lii la amul weer bi bés bi bési mbégte la déedéet si bési mbégte sax da nga war a mel ni muslim da nga war a suloo ni ki muslim noonu nga war a mel si suma gis-gis noonu laa ko yaakaaree man waaw Ibrahima Diawara si weeri koor lañ nekk yaakaar naa ne mboolem askan boo xam ne yaa ngi dëkk si Gambie bi mbaa yaa ngi si aduna bi as jullit xam nga ne si weeri koor lañ nekk yow lan mooy weeri koor si yow. weer bu magala si yëfi jullit te ba pare dañ ko war a ormal weer bi nga xam ne moo gën si weer yi yëpp moo tax su ñëwee nit ñi dañ ko war a ormal fonka ko fonka ko nag mooy fonka li nga doon mooy julit nit ki soo nekkee jullit. da nga war a fonka sa boppa fonka islam bi nga xam ne moo fi njëkka te moo fi mujjee because képp ku juddu daanu si suuf jullit nga des na si sa i waajur liñ la bugg a doon liñ la bugg a wóccee pour nga doon waaye jullit nga kenn ñëwut fi beneen xeet képp ku fi musa daanu si kaw suuf si jullit nga des na si sa waajur ñu yóbbu la beneen diine waaye jullit nga soo jullit nag dafa war a fonka mboroomi jullitam fonka diine bi fonka islam bi waaw waaw si si si ñëwee si solin yow xam nañ ne ne yaa ngi sol yére yoo xam ne comme liggéeykaay nga dem ne fu mu nekk nii waaye jullit naka nga naka war a solo jullit ni nga war a solo soo ko seetloo kenn warut a wax sa morom jullit sax ni nga war a solo because bés bi nga juddoo xamuloo naka nga meloon waaye dem nga ba fekkee ñi nga xamne ñoo judd saron ron li ñu leen uufee ni ñu leen tiyee su boobaa yow sa bopa di nga xam naka la wara solo waye yeneen yi pour wéri koor man dama né lolu politique la te diiné bi amul politique because ko gis xamna ni nga wara mel amna solen yo xamne su la kilifa ooyee o nga wara a dem béréb uti liggéey solin yi nga sol ak so ñene nga gis ñene ñu si jama ak solin yi ngay sol it's terrible te julit mooy mboolo te julit soo demee ba war a solu nga xam ne doomi julit nga rek danga nga war a sol lu yiw sol lu mut ku la jis respect la ku la gis xam ne kii doomi julit la waaye ñeneen ñi nag seen coleen yëpp si weeri koor bi la su passé weeri koor rek dee doon kaa ene moo kaa wuñ dan di war naa koo def dal di war ma koo def loolu juliti politique la politique nag amul si juli soo nekkee julit da ngaa nekk julit from di koor sa colin su la nit rombee gis la dafa war a xam ne kii jullit la loolu mooy yëfi jullit te nga gom si sa xam nañ ne si weeru koor lañ nekk ah, weeru koor dafa nekk weer bu tedda moo saf di jigéen ñi jigéen ñu bari dañ dee wax ne weeri dañoo bugg a sol lii dañoo bugg a sol lii mm-hmm. uh, waaye yow as jullit bu jigéen naka nga gisee solo mu nekk weeri oo mu ñaaka nekk weeri koor anyway um, definitely mu nekk weeri koor a nekk weeri war nañu mën a sol lu especially as weeri because weeri nekk na weer boo xam ne like weer bu tedd la so dañ war a seelal du ba man sax laa di mën sol like yéen a ngi ji like weeri definitely lañ ko war a seelal te ñu su fekkee ne tamit ku nekk nga ba gis ne like am na sol yooyu sol yoo xam ne like nekk du jot wit weeri koor wita weeri koor waraloo ko sol ko sol. am na mu yàqu. ah loolu moom baaxut moom dafa nekk loolu moom baaxut su fekkee ne mun na a toogal lu em am ñoo xam ne ñu ko soxla amuñ ko alasaan nga jox leen ko ñu lekk moo gën ndax yàlla laa fay weer bi looy munti munti munti may ak looy munti def yàlla laa fay bul ci xeeb dara nag ak lu mu tuuti tuuti ak lu mu nam ak lu mu munti nekk loo munti may itam ci yaaba ko ci am. jërëjëf ka ah baa ñu ne bëggoon nga wax ñu ah weeri koor na la. Ah, weeri koor weeri koor xanaa jaamu yàlla rek la. wàññi bàkkaar waaw xam nga su nekk su nekk doomi julit su wane dis nan weer bi gisuñu weer bi moo ko da nga war a oon rek ah si yow sa yaay def la amee ki ju ki julli bi te parce que kii fa yëpp jullikat lañ ñoo koy wàllu wàllu am bay werante pour affaire weeru koor ko koor kay alhamdulilah la bi yàlla moo ko wàcce an yàlla moom lañ war a toppa waaw. léegi naka nga gisee solu weeru koor. ah solu weeru koor ah baax na si dëkk ñu ne baax na si trop. baax na si ku ku dee jaamu yàlla da nga war a sol lu baax ñu sol su set ak loo amee may ko seen moromu miskin yi ak boo bu bu xalaat ne nit ku mun a soona nit ku soona bu leen ko bu leen gis nit bu soona kon soo amee daa ngi leen war a jox ñu jaamu yàlla yàlla may la may la àjjana mu may mu wàññi sa bàkkaar yi boobu la woon. xanaa léegi si weeru koor lañ nekk léegi ñu bëggoon nga xelal jigéen ñi. naka la weeri koor ah weeri koor de weeri jaamu yàlla la ak eh, jégale ak baalalante ak yërëmante ak di sol yu yiw ak di eh, di toogalu em te bul yaaxa tamit ni jamono neexut Amina de Cissé mm. yow lan nga war a edda ndaw ñi ci weeru ah man lu ma leen war a edda mooy ne nañ try ñuy dimbale seen parents yi si time liggéey bi bi ko daf dee métti waaye xam nga sometimes ñun youth si dañ dee foog na like suñ ooree rek dañ war a am moo time to relax waaye man dama foog na suñ ooree si lañ gën a war a ut barke si suñ parents yi dimbale leen ndax ñu gën a am barke soo loolu laa na advice ñu dimbale suñ parents yi time liggéey bi nañ ko jëlee as time boo xam ne time boobu lañ war a gara struggle pour suñ diiné bi mu gëna a dal ñu gëna am mo fit ba pare xam nga suñ julli daal ko because so jullee so eh, soo ooree julliwuloo or bo hif nga am way amulo or way so oré ba pare nga julli di nga am or ba pare sa five daily prayers itam fekk mud nañ di nga mëna am yépp sa diiné bi mut sa or bi agana jërëjëf amina Well, viewers, that's all we have for you for the breakfast show on the Ramadan. We say Ramadan Mubarak to all the Muslims around the world. Assalamu alaikum.